اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين بوكي احمد يا تي في نيغي ديلو ديلن نيو ديلن زياره نيب دي نيان يالا سبحانه وتعالى يانو يالا بولي نانغول نيب دي نيان di ndokkeelit ci terute weeru koor bi yal na may ñu àggalek alhamdulilahi rabbil alamin te luñ ci jàmm yal na yàlla nangul ñu ñu ñëwaat tey ngeen ànd ak seen mbokk Oustaz Abdoulaye Fall ci émission biñ tuddee al asila wal ajuba fi ramadan muy ay laaj ak tontu ci koor te nag ñu ñëw sunu uh, li ñetteelu laaj nga xamante ni dafay laaj ki nga xamante nii dafa bari lu muy nelaw lool ci bëccëgu weeru koor wala sax amaana mu nelaw bëccëg bi lépp ndax loolu day yàq koor wala du ko yàq ah mu laajit ne ndax it eh, xëmte bu ko dëkkalee ci weeru koor ngir eh, néew doole wala manqué deret ba tax xëmte dikkal ko ndax loolu la yàq koor gi wala du yàq koor gi ah ñu jéem cee tontu rek yàlla na yàlla def taysir ak tawfiq ah li ñuy tontu ci loolu moo di ne ah, nelaw bëccëg weeru koor du yàq koor dafa bokk ci ñi sib rek maliki yi ni ñoom loolu lañ wax nee ki bari lu mu nelaw ci bëccëgu weeru koor nee na loolu ci li yaq koor waye def na lu ñu kon nga ni nelaw lu bari ci bëccëgu weeru koor wala nga nelaw bëccëg bi lepp koor ga wér waye nak def na lu ñu ndax eh, li tax def na lu ñu sib mooy koor dañ cee war a sàkku ngeneel màngu ko sàkku ci tuyaaba te comme que na boppam ngeneel lu bari moo tax boroom xam-xam yi ngeneel googu mu rëccal boppam nag faatal ko boppam ah te dara rëccalu ko faatalu ko dul ay nelaw kon nelaw yooyu dañ koo sib boo demee ci xam-xam yi ku mel ni imaam nawawi loolu la wax imaam ibnu quddaama it nawawi nee na walaw naama jami an nahaari saxa sawmuhu ala al bu ne la woon bëccëg bi lépp koor ga wér na imaam ibnu quddaama nee na annawmu laa yu assiru fi sawmi koor daal lu def effet du jeexital ci koor moo xaw nelaw na bëccëg ba lépp wala genn wàll ga la nelaw kon sikk amul ci ne euh, tuyaaba koor mu ngi aju kemtalay nit ki sonn bi mu sonn ci koor gi ak dépense bi mu dépensé ci koor gi te loolu mi ngi ko sukkandikoo ñu ngi ko sukkandikoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax euh, sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ne ko inna laka min al ajri ala qadri nasabika wa nafaqatika xadis la boo xamante ni xaakim nettali na ko yonent bi ne day Aïcha da nga ni peer gi nga am ci sa koor de mu ngi toll ci noo sonne ci koor gi rek ak noo ci koor gi rek kon nga yëg ni kon koor nit du ko tëddali ko nelaw waaye dafa ànd ak it liggéey tabarakallahu yàlla na yàlla may ñu màngu ko ñaareel bi moy ki nga xam te xamte da ko dikkal ci bëccëgu wéru koor bi képp ko xam ni xamte da ko dikkal ci wéru koor ah manta wésu ñaar yi benn bëccëg bi lépp mu xam ko xeq wu ci benn yoon wala xeq na ci ci diir bu gàtt ci diir bu gàtt donte ci cat la la wala ci ndorte gi la xam te dikkal ko wala mu xam ba ci cat la ko mu ximti dog jot mante romb ñaar yooyu kon bu fekkee dafa xam njëkk fajar di xar fajar xar koor commencé xeqiwul xeqiwul ba bi muy xeqi jant bi sonal kon fiñ na fa la koor tàmbalee min tuluil fajri ila gurubi shamsi yëpp xetu wu ci xoole wu ci koor googu boroom xam-xam ne nañu wérut daa war a fay bés boobu li ci tegtal mooy ah koor al imsaaku la mooy nit dafay jàpp ci lii lépp luy yàqu koor ànd ak yéene kon ki xam àndut ak xelam kon mënta ràññee luy yàqu koor ak dul tax ñu ne bëccëg boobu daf koy fay ak li bi sallallahu alayhi wa sallam wax wala yàlla moo ko ci xadisu qudsi ne wax ko ci ki woor ne kii woor day waayi day bàyyi day bàyyi lekkam bàyyi naanam bàyyi bànneexam ngir man mu jël bàyyi ga askanale ko ki woor kon ñu dégg ci ne kon ki xëm nag kenn du askanale ci moom ak bàyyi ndax dafa xëmte kon ki woor lañu la yàlla askanale yatruku taamuhu wa sharaabuhu wa shahwatuhu min ajli kon ki xëm nag kenn du ko askanale loolu kon li tegtal ci ne euh, dafa war a fay bés ba xam te feebar la yàlla moo ne man kaana min man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar képp koo xamante ni xam te dikkal na ko wala feebar dikkal na ko wala mu nekk ci tukki na jàpp bés ya mu bu ñu waree mu fay ko loolu mooy bu njëkk bi ki nga xam ne xam parti ah wala xam lépp bëccëg weer ko bi yëpp ki nga xamante ne dafa xëm waaye xeq na ci bëccëg bi benn parti moo xam ca fajar gala xëm te ah, dikkal ko xequwul xequwul boobu bi ñuy waaj a dog mu xeqi dog jot wala boog mu commencé wóor tuuti xam te dikkal ko xequwul ba ñu dog ba pare kooku am na lu mu woor ci bëccëg bi doonte néew na kooku neen koor googu wér na wér fay bés boobu kon bu ñu résumé wax ji moo ne ki nga xamante ni xëm te da koo dikkal ci bëccëgu weeru koor bi yëpp li ko tàmbali fajar xare ba jant bi so kooku bëccëg boobu da koy fay ki nga xamante ne xeq na ci donte lu néew la moo xam ca fajar ga la ndorte gi wala ca càttar bi jant bi so la soo ko xeq am na lum ci woor kooku kooram bésam boobu wér na يلا يلا دف يون ديغل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأسئلة والأجوبة في رمضان مع فضيلة الأستاذ عبد الله فال أي لاج أكيتون رتي ويروكور جنشي أندك سنبوك أستاذ عبد الله فال